On nañoo mun am ay euh, adversaires a Bolivie ou l'Iran. non mais attends Iran ak Bolivie en tant que champion d'Afrique tu nga une classe mondiale 18e. huitième. pourquoi ñun bëgg sous-estimer waa Iran ak Bolivie? Bolivie ñoom une équipe lañu comme nu Allemagne équipe tamit. mais loolu moom gisuma gisu loolu du match sax je ne crois pas mu un match Sénégal en tant que champion d'Afrique pour moi, du woon yoon sax tey ngay dem di jouer ay match contre Iran ak Bolivie. oui waroon nañ am mën a am ay équipe yu gëna bax comme par exemple ay Paraguay wala kii euh, Bolivie wala kii Costa Rica yooyu. de un pour lan fédération bi ci bopam parce que la plupart buñ ko naré def dañuy daw ci génne ay fonds. xaalis la ñuy bañ a génnee pour mën a affronter équipe yi mag mais tey ji booy natt sa doole tey ji imagine toi nga nekk benn mbër benn genre Yékini nar a dem natt sa doole benn genre Yawou Dial y' a pas combat tey ji même boo dooree Bolivie dóor Iran 20-0 lan la lay apporter yow mi nekk champion d' Afrique tey ji bu lay boole nañ la boole ci ténor Europe yi ténor Amérique latine yi nga xam ne carrément boo ci génnee lii moom mën nga ko préparer niveau mondial parce que même Iran ak kii sax mën naa ne sax du niveau nawetaan sax sakatuma sax mën naa la wala ay préparation coupe du en tout cas pas l'Allemagne et les autres euh, équipes les plus puissantes euh, sur le plan international. On pouvait avoir euh, l'Algérie, le Nigeria, Cameroun, par exemple, pour nous préparer sur parce qu'on pouvait même plus finir en Afrique. L'équipe équipe d'Afrique Afrique pour nous défendre une masse d'entraînement ou pour nous tester sur Le Nigeria, ça, c'est nañu ko jël pays d'Afrique Nigeria, Tunisie Maghreb ça, sax équipe de parce que c'est des adversaires de taille comme Algérie daf ñu yàgg sonal dina pour essayer pourquoi pas mais pas l'Iran. L'Iran, moom c'est autre chose. Bon, sur le plan international, l'Iran mënoo ko situer. donc sur le plan footballistique de tout l'Iran. bon waroon nañu fa des adversaires de taille comme ça ñu jéem a tester suñu sur le parce que c'est à deux mois euh, du mondial. jarul ñu leen di xeeb en fait parce que dañuy préparer comme ñun ni ñuy préparer woo donc équipe bu mu mënti doon soit muy euh, équipe bu mag wala mu nekk équipe bu ndaw donc nañu def li nga xam ne lañu la ñu wax parce que buñu ñu sous-estimer rek mën nañu gagner. donc nañu def lu ñu war a ñaan yàlla yàlla mooy ñu ndam. nañ jox gaa yi cër nañu jox sénégalais yi cër woon gars yi lan mooy fubal Iran booy fubal ak moom boo dugalee Sadio Mané bu dugalee diir bi lan la ci yokk yokku ci dara mais tey ji nee Sénégal mi ngi fubal par exemple benn genre euh, Angleterre Allemagne wala mi ngi joué benn genre comme Brésil loolu moom mun naa ne day attirer de un gars di seetaan Sénégal même bu neewoon sax dañ ko xeeboon dañ ko gën a jox respect mais gars dañu respecté ñun sénégalais fédération na ci teg bakkanam. ñu xam carrément nit ñi xam nañ comment ça se passe nañu jox équipe yi baax ñu mëna a préparer suñu mondial ñu mëna a suñu équipe. mën naa comprendre par exemple Iran ak Bolivie par exemple ñu dem jëli Bolivie comme Équateur lañu am pour ñu mëna xam ñom seen football fofu non nan la démé ñu jël am Iran parce que comme que ñoo ngi Qatar fofu non par euh, dina xaw am xaw tuuti am ben similaire ak Qatar comme que ñoom am nañ benn ligue boo xam ne ligu ligu boo genre coupe d'Afrique wu naar yi la boo xam ne ñoom dañ koy faral di organiser ay Iran yooyu noonu da ci bokk ay Égypte ay Qatar je pense bien que ne looloo tax manam ñu dem jëli euh, Iran. quand euh, la Bolivie bon c'est une très bonne idée car euh, dinañ jàng si Colombie lu bari parce que c'est équipe sud-américaine là mais pas l'Iran sur le côté sur le plan économique wala financier du la apporter dara. peut-être waroon nañu def ay phase de test yu gën important yooyu. Iran même bu ñu ko dóoree sax man je suis pas convaincu. bu ñu dooree bëli bi je ne suis pas convaincu. avertissement avertissement avertissement euh, avertissement pour kii euh, ci kii bi par exemple ci nan ci nan ci nan. comme day avertissement ci am match de football comme day avertissement ci am match de football bon am na excuse carton da lay da lay carton non bu fekkee da nga def erreur ci match non. c'est je ne me trompe, c'est ça, non C'est ça, non C'est ça, non un avertissement un avertissement <laughs> Tu <laughs> euh, côté tu côté tu côté jaune am jaune ah, orange bon man li ma ci carton jaune a ah, moo ci amay avertissement ak gardien bi tam bu naree dégager bal doom ci jaay reewoon lu góor bi avertir ko góor bi avertir ko góor bi avertir ko après carton génn ah bon il y a l'avertissement amna verbal après carton ans soog verbal après ñu soog a carton des fois nous sommes connus ko neexee sax mën naa ñëw rek jox la zone sans verbal bi deux avertissements Le la jox ñaar premier avertissement verbal deuxième avertissement carton jaune troisième avertissement carton ans loolu expulsion la lay daal terrain avertissement.